fii laa mujjee seet ndax xam naa ni boo toogee fii rekk amoo lu la neex lan moo xew lu xew fexe ba moom ñoom ñaar ñu mën koo bokk lekk ni xaj ak moos mel ci kër ak la ñu mel waaw abi bu bàyyi woon fii ay gune bu ne wër wàcc ma fi du wéet maa ngi ni toj mel ni ku toog bi lan moo waral amoo amul doom te loolu du sa cër te bul fàtte ni ne jabaru jàmbur kon nag xoolaat bu baax li ngay def. li nga wax lépp na dégg naa ko waaye dafa am leen lu ma si dégg loo xam dafa ma naqari. Hmm. ndax papa man buubu sëy bi ngay tudd ci sama digganteeg Cheikhouna jeex na bu yàgg sam papa. dawul ma yërmande su ma mënoon leneen dama koy def mais mënuma leneen. fii lu ñuy xalaat ak lu ñuy réfléchir amatu fii kon da ngay dem. c'est trop tard.